asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ci taalibe yi bokk jullit yi moo ngi leen di siyaare nga xam ne mooy bisub jullit xiit ni ko ndawul yàlla li waxe sallallahu alayhi wa mu ne xeet woo gis am na bis bu leen yàlla sàkkal muy seen feet nee na lislaam sunu feete gi nii mu sant yàlla gannaaw ba nga xam ne daf noo digal ci téereem bu tedd bi ne digal na xeetu yonent bi nuy woor weeru koor wi ni mu ko daan digale yonent yi ko fi jiitu woon mu ne bu nu ko defee ni mu ko waxee mën naa am mu may ñu ci ragal yàlla nu sant yàlla kon bi nu taxawoo ba nu woor ko ba mu jàll jàmm ñu war cee teg nag loo xam ne woroom xam-xam yi wax nañu ne koor gi du jàpp ni mukk di fekk génnewuñu zakatul fitri muy muurum koor bis ni démb bi jant bi di tëdd ku di nit mu fekk la ci kaw suuf boo doon liir buy soog a sax muurum koor dalay wax muurum koor saxa lañ koy natte walla mudd mi ngi toll ci kilo ak genn wàll ak téeméer ak juróom fukki garaam ci dund bi gën a yaatu ciim réew bu dee noonu senegal mën nga ko def ceeb maa nga def ko dugub réew mu mel ni France bele moo gën a bari mën nañ ko def bele fekkee loolu amul nag mën ngaa joxe xaalis képp koo xam ne kilifa nga yor kër képp koo xam ne ci sa dund lay xéewloo warteef la ci yow nga génne ko te génneel ko képp koo xam ne yaa ko yilif mbaa koo xam ne yaa koy dundal loolee mooy tax koor ga mën a jàll suñu borom def ci la ko soob kon liñ ci taamu nag mooy di ko joxe balaa bisub julli gi ndax feet la woo xam ne jullit yi bisub xewlu la bisub lekk la bisub naan la te asaka jooju dafay dem ci néew ji doole ji sunu boroom bëgg ñoom it ñu bokk ci feet bi moo tax doo ñëw julli ji ba noppi soog koo génne lu mel ni démb génne ko daa gën nga xam ne bu ñu julloo ba noppi képp kuy feetu néew ju doole ja mën caa bokk ñoo ngi leen di fàttali di ko fàttali suñu bopp kon ne feet wii suñu borom may ñu xéewal gii mu ñu defal ci gan gii tàggoo dafa dolliwaat ay njariñ yu ñu war a sante suñu boroom cant goo gii nga xam ne suñu boroom daa bari lool lu mu ko indi ci alxuraanul karim ba tudde boppam ci jaar-jaari alxuraan yu bari ne moom cantaakoon la te mu waxoon yonent bi ne ko na ngeen jikkowoo samay jikko masala li ñuy indi ci màndargal leen darajay cantaakoon sunu boroom dafa sàkk téeméeri junni ak ñaar fukki junni ak ñeenti junni ci ay ndaw yoo xam ne daf leen a déey sekkere ñu di ay yonent ñamu déey sekkere du ñépp la sant wax loo leen ca mbooloo ma ñamu wax loo ca mbooloo ma ñetti téeméer lañu ak fukk ak ñett lañu jox ba am googu daraja moo tudd risaalatu loole moo leen def morsalina ab yonente ngi boo xam ne kon bokk na ci ñu njëkk ñi ñetti téeméer ak fukki ñett yi risaala mu bokkaat ci ci seen biir suñu téere bu tedd bii di alxuraanul karim bi muy tudd ci ñoom ñaar fukk ak juróom rekk la ci tudd yonent bii ma leen di wax bokkaat na ci ñaar fukk ñi ak juróom juróom rekk ñoo am daraja gis jibril ci lu dul ay nelaw ñoo gënoon metti liggéey waaye sama boroom taxaw na leen ba am ca ndam yonent bii ma leen di bëgg a wax bokkaat na ci ci biir juróom ñooñu ñett am nañ ci nu boo wutu tashaya yonent goo xam ne dafa ànd ak yoon yonent bii may wax bokkaat na ci ñett ñooñu ci biir ñett ñi sunu boroom wax ne musuma defal nit di wax ak moom lu dul ma sànni ca xolam la ma bëgg mu xam ko wa illaa ma yónni ko ndaw wa illaa ma jegeñal ko sama bopp waaye ma doxale kiiraay sama digg ak moom waaye nag bii yonent suñu boroom fël na ñett yépp wax ak moom jàbbet jàbbet muy yonent yàlla Muusa kon boo ko toppee ay dara darajaam lu baree bari la te ba yàlla di wax ak moom jàbbet jàbbet ñaari yonent yi mu romb ñoo ñaar ko ëpp daraja te taxul yàlla defal leen ko muy sunu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak seydina isa alayhi salaam moom moomee alxuraan daf ñoo jàngal ne daa amoon rendez ak sunu boroom ba mu dajee ak moom mu ne sunu borom mu réekul ma séen la sunu boroom ni ko déedéet doo ma gis mukk ni nga nga ko yaakaare xolam ba daal di jàpp ne xanaa du moom mooy kiilif nit ñi moom de war naa mën a gis boromam suñ borom tontu xol ba ne ko xoolal daju wale di ab montagne moo ëpp doole nit gën koo dëgër man mi nga bëgg a gis danaa jël tuuti wan xeer wi su xeer wi desee ci barabam kon jàppal ne dinga ma mën a gis waaye su ma wanee xeer wi sama bopp da nga xam ne doo ma mën bu xeer wi mokkee doo ma mën a gis sunu boroom nee na keroog ba mu wuññee mbiram ma ni ko jëyi doj wa alxuraan nee na doj wa dafa mokk rumbax doon ab dóomu moom mi nekkoon ci wetu doj wi mu daal di xam bi mu ximmilikoo daa tuubal suñu boroom ne ko mankat dama doon ñaan xëy na kon lu ma xamul sunu boroom nag di ko yedd waaye di ko jàngal ne ko yow Moussa dama doon tànn téeméeri junni yonent ak ñaar fukki junni ak ñeent ba ma la ciy boole waxooma ko ñetti téeméer ak fukk ak ñett mursaliina yi ba ma leen di tànn ma boole la ci waxooma ko ñaar fukk ak juróom yay dikk ca téere bu tedd ba di alxuraan dugal naa la ci te waxooma ko juróom ñi nga xam ne ñooy ulul azm boole naa la ci te ñaanooma ko ñetti nu boo wutu tashriha yi jox naa la ci benn te sàkku woo ko ñaar ña ma romb wax ak yow jàbbet jàbbet wa kallama allahu musa takliman ba may wax ak yow ñaar ña ma fa bàyyi ñëw la ëpp daraja te waxuma ko kon nag musa fa xuus ma ataytuka doy loolu la ma la jox waaye lu mu ca teg ndollent nga bëgg ma egg ak yow fu weesu fii ba nga ne danga maa bëgg a gis mu ne ko waaw mu ne ko loolu soo ko bëggee wa kun mina shakirina da ngay dem bokk ca cantaakoon ne nga jàng ci kon ne Moussa lii lépp romb na ko te takkagul dara jay cantaakoon man largam suñu borom la xayrul alamin muhammadu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam suñu borom dafa wax ne ko wahyu naa la wa laqad uhiya ilayka wa ila alladina min qablika la in ashrakta la yaxbatanna amaluka wala takunanna min alxaasirin bal lillahi fahbud wa kun min alshakirin muhammad wax yu naa la la ma wax yu woon gaa yi la fa jiitu woon mooy bis boo ma bokkaale di sa jëf yépp di nga ko sànq boo ñëwee àllaaxira di ko perte li fi nekk mooy nanga ma jaamu te na nga dem bokk ca cantaakon kon la waxoon ne wax naa ko képp ku di ndawal yàlla ku fi dikkoon alxuraan moo ko saxal li ko dale sunu maam aadama ba soxnaam sa tollee diggante ñoom ñaar ñuy sàkk doom ju góor wala in ataytana saalihan lanakunanna mina shakirin yow yàlla day boo nu mayee doom ju góor ju baax ñun day dinañ bokk ci ñu lay sant kon ñépp la ko suñu borom digal moo tax bis bii dafa dolli bari cant yi nga xam ne dañ koo amal suñu borom dañoo war di dëkk ci di ko sant te di ko biral moo ngi ñaan mu dimbali ñu ba taarub lislaam bii jullit ñépp sàmm ko bañ a dog ak bokk di dox ay diggante di defalante jàmm tey waxante lu baax alxuraan ne ne nit ñi ci seeni diggante nañuy waxante lu rafet nañuy yërëmante hadis ba wax na ne yërëmante leen yéen ñi fi suuf kon ki ci kaw yërëm leen nañuy balante àq nañuy defalante njekk cheikh mahamadul bachir moom sëriñ baax bind na ca téeréem ba waxoon ne ay jullit day war nañu toog ba yàgg ñu defalante ay teraanga ba seen diggante di neex ndax nee na bis bu seytaane dikkee ku ci xool teraanga jala sa moroom defaloon sa xel dem ci ba ngeen doon am jàmm loolu day tax ngeen yomb jubóole war nañu defarante ak yiw nañ koy waxante nañu yar sunu njaboot ci diine ak taalibe ñu sàmmoonte ak àqi sunu moroom bu ñu tilimal derub jàmbur nañu moytu alalu jirim ndax alalu jirim ndénkaane la te alxuraan ne ndénkaane kaana masqulan lu ñuy laaj ëllëg la ci kanamu sunu borom nanu ragal yàlla ndax ragal yàlla kat mooy li tax ñu indi nu fi fa taqwa fal aqibatu li taqwa li mujj nga xam ne fa la ñu jëmee mooy ñu mën a egg ci ragal yàlla fa taqullah wa yuallimukumullah képp koo xam ne ragal nga yàlla yàlla dana la jàngal koor gii ñu jóge wenn weer la woo xam ne sa juróom-ñaari cër yi dañ bëgg nga yar ko biir moo ci mujjee bokk bët bi du xool lu araam noppi bi waru koo dégg gémmiñ gi làmmiñ wi du ko wax bakkan bi du ko xeeñtu tànk bi loxo mi pëy mi biir bi soog a ñëw xiif fanweeri fan yooyu mbaa yu manqué benn yi nga xam ne nootoon nga cër yooyu ak tàggatu la maanaam entraînement la ngir fukki weer ak benn yi ñëw loolu yi nga jàngoon ci weer wi nga di ko wéyal moo tax sunu maam Cheikh Ibrahima Babul Muridina waxoon na ne képp ku dëkk ci maandu yaa gën kuy koor ndax woor maandu te lay jàngale sa cër yépp yaroo yépp sax ci li neex sa boroom te bañ a jege la muy tere foo mën a nekk ak waxtu wu mu mën a doon yaa ngi woor moo tax sëñ Tuubaa waxoon na ne murit saadix mooy koo xam ne bisam yépp bëccëgam yépp koor la murit saadix dëgg nee na bëccëgam yépp koor la ba ma jotee jullit ñi soog a sangu set sol yére yu yees dem jàkka ja toog ca jàkka ja na cel sell lool sëñ Touba na murit saadix jataayam yépp néegub yàlla la ñu dem màkka bu dërëm yu lew bu demee watu sol benn yére bu weex rek muuroo ko doo tax dara set wicc ngir wër ga ngay wër néegub yàlla ba ak lañ cay def ci ngëneel sëñ Touba nee na murit saadix guddeem yépp dafa mel ni aji foo ko fekk mu ngi mel ni kuy wër kaaba gi sëñ Tuba nee na murit saadex bisam yépp àjjuma la murit saadex nee na foo ko fekk li yàlla digale wutul ko bis wutul ko weer kon lii ñu jàng tey jii ci fanweeri fan yi tàggoo te tey jii di benn fan weeru shawal yenent bi nee na benn fan bii ak juróom juróomi ci topp képp ku leen woor tey jii du bisu woor yow ma shurbi wal lii la tey jii araam na nit di ko xiif waaye ëllëg ak juróom ya muy juróom-benn yonent bi nee na ku leen woor tegale leen doggoo ko yaa ngi mel ni sa giiru dund dangaa woor kon noo ngi soññ suñu bopp ci góorlu ci ak bi te xam ne nun yoonu tasawuf la nekk te tasawuf sëñ bu mag bi def ne kulluhu adabin lépp adabul mardi la teggi nu yàlla gërëm la tasawuf du wax sëñ Tuubaa mi ñuy wut ay ñaan mu jàppandi lu nu boppam sëriñ Saaliw daa wax ne tasawuf jotewul fa sëriñ Tuubaa kon luñ ci góor góorlu doyul nañ sëñ Tuubaa dimbali ñu mu jàppandi lu nu boppam jege si lu boppam ba ñu mën koo jot te saxal nu ci ak taalu bi sëriñ Béthio suñu yaakaar ji yàlla nañu dolli ndax moom de defal nañu te àddina sépp xam na ko yàlla nañu dolli yàlla nañu sax ci ak taalu bi sampam bii yàlla na nañu sax ci wetam yàlla nañu fi sëñ Béthio bàyyi si wetam faw ndénkaane de lu ñuy laaj ëllëg la ñun ñëpp la jël at ci moom dañ ci farlu te lépp ñu boole ko ak i teggin akuk maandu waaye akuk way sëñ Béthio dey moo ñu ko booleeg dara moom de sangam bii di sëriñ Saaliw mosu koo booleeg dara ndigal lii mu ñu jox sëñ Tuubaa noonu na ndigal jantu fajar la lu bis bi di gën a dem day gën a leer nee na la dul ndigal nag weeru timis la lu guddi gi dem mu gën a lëndëm dimbali nanu ba nu tënku ci ndigalam li nañuy fugloonteeg ndigalam loolu nañuy fugloonteeg ak bëggam te bu ñu fàtte mukk benn ndénkaaneem Cheikh Abdul Ahad moom sëñ Tubaa noon na murit de ku war a am fit la waaye fitam de du ngir xeex du ngir xuloo nee na fit taalibe da koy jaay ndigalul sëriñam te ndigalum sëriñ su ñëwee lu mu ñàng ñàng ñàng ci Abdou Lahad nee na jaay ko fit nee na fit sa ndigalul sëriñ nga koy jaay waaw li ñu sëñ Béthio sant te digal ñu ko te teg ñu ñu ne ci ba waxtu wii bu ci kenn raf dañ ko boole ki teggin dañ ko boole booleeg maandu sëgg ci liggéey bi te ne pat sëriñ Saaliw noonu na safaray coow bu dee lakk ndoxum noppi moo koy fay kon Aïda Saliou mii moo dégg sëriñ Saliou ngi ñaan nga yàgg fi sa yaari bunt yu tedd yi sa yaari liggéeykat yu tedd yooyu sawet wet wax na ba tóor Saliou soxna Adja Saliou yàgg ci yow nun ñu yàgg ci yéen nanu weesu yàgg nañ fi sax faw ci yéen ànd ak yéen seen liggéey bii nga xam ne ah mooy liggéeyub sëriñ Saaliw bi mu teg ko ci loxol sëñ Béthio ni ko liggéeyal sëriñ Touba de lii la ak lii ak lii ak lii bul ko wax mukk ci mbooloo kon ñépp bàyyi lañu def topp la di la toppandoo te du tax kon ñu am ca dara buñ ca amul ndigalul sëñ Touba yow nag sëñ Béthio mu ne Mbàkke mu ne ko yow ku ànd ak yow donte xamul yooyu yu mu mu ngi liggéeyal sëriñ Touba nun sikki sàkk wun ne noo ngi liggéeyal sëriñ Touba noo ngi ñaan sëriñ Saaliwu saxal ñu ci sëñ Béthio mii nga xam ne mooy sa dëgg-dëgg jëmm ji sax dàkk ci boole la ak sa bunt yi tedd yi sa amir yi sa taalibe yi ñi teew ak ñi teewul fu waay mën na ne waa bitim réew ñépp a ngi ànd maase di la ñaanal euh, ndam lii nga xam ne moom la la sëñ ca defal mu sax te day sëñ Tuubaa de waxoon na ne na yàlla amul nawle boo xam ne bu sampee keneen simpi yàlla amul nawle boo xam ne bu sampee keneen simpi taysiru amriya ilallahi samat xaatabtuhu laysa lahu kufan ahad sëñ Tuubaa nee na man la ma bëgg yàllaa ko sasoo te yàlla amul nawle boo xam ne bu defee keneen dindi ne man lu ma bëgg yàllaa ko sasoo te yàlla kenn du ko dëkk waaw sëñ Béthio sa sang bi sëriñ Saliou ko ne yow defoo waxu loo def maa ko def loo wax maa ko wax bakkan nekku ci àddina nekku ci lépp sëriñ Touba la ku bëgg a gis jëf joo xam ne sëriñ Saliou ko jëf tey jii na ne jàkk soxna Aïda Saliou alquran nee na yamhu llahu maa yashaahu wa yusabitu wa hindahu umul kitaab yamhu dafay far kuy far mu ne allahu yàlla lan lay far mu ne la nekk ca ndeyi téere ba ca wetam ndeyi téere yi téere bu dikk lay la ngay ëmb ma ngay jóge ca wetu suñu boroom ca àlluwaam ja foofee xibaar lañ daan jox yonent mu xam la xew waa dëkk ba xam la xew ñaare dara xew ci àddina toog ba yàgg suñu borom far ko ca wetam xewwil ko fa te waa àddina dootuñu yëg ne loolu xewwi na ñuy tëbaka dal ca loolu muy riir te fekk loolu xewatul ca kaw bi alxuraan wàccatul ndawul yàlla dikkatul saa woo saa suñu boroom xewal lu bees foofa te ndaw lu ko indi ci kaw suuf du am ña am tawféex yàlla ilham leen ko sànni ko ci seen biir dënn ñu yëpp ko di ko dox ñeneen di ko xarab di ko xëpp suuf te la ñuy xëpp suuf moo xew fa soxna Ayda Saaliw la sëñ ba ca xewal fa sëñ Saaliw jàmm dana am Muaz ibnu Jabal ba mu dem yeman yonent bi daf ko noonu bul cor liimaan cor liimaan mooy jël la nga gëm rafetal ko ba mu rafet ak ca kaw jël nga mu jàmmul xëpp ca suuf boo ko defee koo bëgg a woo ci yiw wii nga nekk du la ca fekk fonkal leen nit ñi seen i ngëm nañu respecté seen i àq respecté seen der respecté seen honneur noo ngi ñaan suñu borom defal ñu ci ndimbal di baal ñëpp àq tey sàkku ñépp baal ñu àq tey ñaan yàlla boole suñuy xol def Sénégal jàmm ndaw ñi mag ñi ñi tawat ñi nekk ci lopitaal yi ñëpp suñu boroom def fi jàmm bu ñu bokkul lu ñu gëmit ñu séqi jàmm ñun ñëpp ba keroog ñuy fekk sunu borom bi nga xam ne nee na lépp lu ngeen mës a am ci wuute bu ngeen ak fay fi man dinaa ko leeral yàlla nañu yàlla defal tawféex sëñ Béthio jëmam jii di soxna Aïda Saliou yàlla na sax jamono ak muccam wéram ndamam ak i buntam yàlla na doon mbirum sëriñ Saliou allahuma salli ala seydina muhammadin wa sallim